le 25 ak le 26 novembre ñu di si woo bépp liggéeykat bindu leen si www.sisit.sn Le business change avec Orange. La vie change avec Orange. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte saa su ne dina dégtal seen émission bi ngeen xam ne mooy décryptage tey ñu fas yéene waxtaanee taxawaayu réew mi fan la toll. ma mbégte dajale fii ay ñoo xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu politique euh, ñoo xam ne ràññee nañ leen ci yëngu politique. ma mbégte dalal fii ki nga xam ne moo di Ibrahima Mbow Ibrahima Mbow du gan ci kër gi daanaka ndax yàgg naa ñëw teew ci sunu débat yi mu bokk ci Macky 2012. bokk ci ñuy jàppale président de la république am mbégte dalal fii Aboubacry Diassi moom mi ngi nekk porte-parole union de centristes du Sénégal parti bi nga xam ne Abdoulaye Balde moo ko jiite am mbégte dalal fii euh, Saliou Keita Saliou Keita tamit euh, daanaka du gan ci kër gi moom xam nañ ko bu baax a baax euh, mi ngi bokk ci parti bi di APR nekk responsable politique fii ci Dakar Plateau am mbégte dalal ci Sara Sall mi nga xam ne mi ngi bokk ci parti bi nga xam ne moo di parti démocratique sénégalais euh, nekkoon maire bokkoon ci conseil économique et social tamit euh, ñu fas yéene waxtaanee taxawaayu réew mi laaj bu njëkk bi mi ngi jëm ci euh, ki nga xam ne moo di Ibrahima Mbow Ibrahima sénégalais yi dañuy gis ne fi mu nekk nii ñu ngi jàpp imaam yi ci lim bu baree bari mu jaaxal leen ñuy wax menace terroriste est-ce que da ngeen ko def. ngir faggandiku wala lan moo xew. waaw merci Pape Ali may nuyu sama naataango yi sama mon frère qui avec avec qui on a partagé le conseil. Diassi mhm. et Keita. di rafetlu trop nag taxawaayu 2STV chaque fois sur le débat politique ñuy waxtaan ak askan bi di partagé loolu dafay bokk ci liy yëkkati réew di yëkkati démocratie. Mhm. waaw en matière de terrorisme nag vraiment il faut pas de faux fuyants. terrorisme dafa nekk lu compliqué lu complexe àddina bi dafa yëngatu da ngeen li xew France c'est l'occasion d'ailleurs masawu leen parce que France ak Sénégal dafa am lu ñu seqli yu yàgg ci histoire démb sax ministre du tourisme mu ngi naan 43 pour cent des touristes français ñuy jógee donc c'est normal que ñu masawu leen mais du France rek sax dëkk yi am jafe yëpp ñu ngi leen di masawu ndax Sénégal au niveau des Nations Unies ñëpp a ko fonk récemment la ñu plébiscité pour ñu dem donc au conseil de sécurité loolu dafay wan taxawaayu mais ci mbirum bi nag wax nañu xam ne Sénégal c'est vrai nekkul une cible première dans la sous-région dëgg la Mali Niger Nigeria moo gën a yëngatu mhm. waaye nag président de la République moom ci mission dafa war a assurer la sécurité de ses compatriotes ci loolu lan la ñu wax ne foog ñu mesurer suñu capacité au niveau des renseignements suñu suñu suñu sécurité naam am na ñu ko war a assurer mais ku ci nekk am na rôle boo war a jouer ma ñëw ci affaire wu li xew récemment au niveau du Nigéria ak Mali foofu am na ñu fay wax bokku araam yëngal nañ fa indi fa fitna waa Sénégal dafay toog xaar ba loolu dal ci koom bala mu jël mesure mu jël ay mesures président niveau de renseignement bi mun a am niveau d'information bi mun a am loolu nag nekkul lu ñuy wax ci télé ci télé ci plateau moom su demee ba jël décision ne il faut que ñu assurer la sécurité de nos citoyens il faut que ñu faggandeku d'ailleurs c'est l'occasion sax ma wax ci affaire u burqa bi tuuti parce que loolu moo gën a indi coow li xam nga ñun Sénégal dañu am tradition mun naa wax sax ne ci affaire u ka dama koy wax ci ñetti fànn su fekkee mbàllu diina la rek amul benn confrérie religieuse bu wax ci affaire u ka dara neexul ba neexul waaye ñun xamuñ loolu ci suñu diina ñun deuxième aspect bi mooy li ñaan la dimension sociologique euh, Pape Alé ñun saa yu ñu rombee nit góor jigéen dañu naan la njaay ñang jóob kafantek yow kàll dañoo bëgg a xam ñuy waxal nan la loolu ci suñu aada lañ bokk ci suñu cosaan bokk mais troisième niveau bi nag mooy sécurité xam nañ ne am nañ jigéen ñu sol euh, burka dugal bomb seen biir mun nga dugal kalachnikov ci biir waaye léegi nag loolu dafa nekk loo xam ne vraiment jaxul ko fi indi parce que bokkul ci suñu aada bokkul ci suñu cosaan maintenant euh, Sénégal ñëpp xam nañu référence en matière de religion mm-hmm. Sénégal moom ñëpp a ko naatable am nañ ay ay éducation religieuse bi dafa baax dëgër waaw socle boobu ñu am fondement boobu nga xam ne àddina bépp dañu naw waruñ ko foyee pour des débats politiciens. très bien ma yokk ci rek. foofu lay daanelee foofu mais en matière de terrorisme vraiment nañ éviter le débat la petite j'allais dire politique politicienne ndax loolu du ñu yóbbu ci kanam na ñëpp fàggandeku nag ah fà fàggandeku dafa baax. loolu mhm. la président wax ci loolu lañ nekk. alors Sara dégg nga lu mu wax yéen da ngeen tiit wala euh, si cause nga biñ créé. jërëjëf Papa Li

ñii jàpp imaam yi leen tëj man dama jàpp ne effectivement àddina dafa may question yoo xam ne bu ci buñ ciy tolloo il faudrait pas tout politiser mm-hmm. mais n'empêche question la yoo xam ne boo koy aborder qui que tu sois muy njiitu réew muy ministre muy responsable politique simplement mm-hmm. il faut le faire avec beaucoup de circonspection il faut le faire avec beaucoup de responsabilité il faut surtout nga fexe ba say réalité réew nga mën ci sukkandiku pour mën ko aborder bañ a topp rek riiru àddina bi ak yeneen réew ni ñu koy aborder parce que réew bu nekk rek ak ay réalité leneen li ma ciy dolli mooy xam nga réew nit mën na am xarit mën mën na am xarit mhm. population yi mën nañu amay xarit le peuple français euh, au passage maa ngi leen di jaale le peuple français je dis bien. <coughs> Euh, les familles des victimes ñi nga xam ne seen mbokk gaaju nañ ci. ak sénégalais yi nga xam ne seen i doom des nañ ci. ñëpp maa ngi leen di jaale. mais loolu dafa wuute ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk mi jiite ko muy foofu muy fii. nga xam ne gën ngaa bari problème yi ñoom ñoo koy sooke. moo tax boo ciy wax dangay xam noo ciy waxee ak noo ci duggee. da nga jàpp ne Macky sal ni mu ko waxee waxee. dama jàpp ne. Euh, circonstance ya mu waxee mbir mi ci ndaje boobu ak na mu ko waxee ak dànkaafu yam ci boole jëmale ko ci responsable politique yi du noonu parce que ñooñu muy dankaafu seen bopp sénégalais lañu comme moom donte dontele moo jiitu réew mi tey moom la yàlla dogal dontele comme ni ma ko sa ni ko sama frère mboo waxee amaana am na xeetu information xam ne mu ngi koy jot <coughs> ñeneen ñi amaana mënuñ ci jot mais aussi addina dafa am yoo xam ne dafay xew il faut ñu ciy sukkandiku pour lire li nga xam ne mooy xew tey gis nañ ne l'Occident de manière globale pour ne pas parler des États-Unis ak de l'Angleterre particulièrement ba ñuy dem di bombarder Saddam Hussein di ko jiñ ay armes de destruction massive ay armes chimiques la mu jur ci bokk ci sax li nga xam ne mu ngi xaw France déstabiliser àddina bi yépp te loola mu ngi jóge ci ay rapport ay renseignements yoo xam ne mi ngi jóge fii ak fa la ñu ji jox ko président américain peut-être mais particulièrement le premier ministre britannique Tony Blair bërki def na mea culpa am wax dëgg yàlla ba nu fay dem la mu xam tey bu ko xamoon xëy na moom du ci bokk xëy na en gros loolu la wax donc ma xalaat ni euh, dafa am yoo xam ne li ñuy wooye ay précédents dangereux booy wax nekk kilifa ba ca biir kër da koy éviter parce que ëllëg mën na retourner contre contre yow li li tax ma koy wax nag bu ñu demee ba ci biir dinaa dinaa wax lan lan moo tax mu ko woy ay précédents dangereux mhm. alors euh, ma ñëw ci euh, Keita yow est-ce que foog nga ne discours bi ñu def ni comportement bi état bi am c'est normal et, évidente pour sa parer contre le terrorisme. Euh, Pape Alé jërëjëf. ginnaaw bu ñu sante yàlla jullit si yonent bi sallallahu alayhi maa ngi lay remercier d'abord. si invitation bi nga xam ne nii defal nga ma ko. di nuyu téléspectateurs yi yu 2STV bi di nuyu samay co-débatteur ci émission décryptage bi nga xam ne ni sénégalais yi. Mhm. ñu ngi koy seetaan seetaan di déglu. E, yaakaar naa ni tey mbirum terrorisme nañ ci dem ndànk. Hmm. buñ si dem ak xol waaye nañ ci dem ak xel. ndaxte phénomène boo xam ne ni phénomène bu bees la daanaka bu nga xam ne ni épargné wul benn réew amul continent bu mu épargné Amérique Europe Afrique amul benn ville boo xam ne ni tey mën nga yëkkati sa loxo ne terrorisme bàyyi na ma à côté. Hmm. amul kon ñun senegal tey ji ni nga ko waxee ci njëlbeen. nañu jël suñuy matuwaay te loolu le gouvernement bi tey jii nekk au pouvoir di doxal daanaka ëpp na at ni nga ko waxee tey discours bi nga xam ne ni président de la république jël na ko yaakaar naa ni c'est un discours très responsable li tax ma wax loolu parce que askan bi bu ñu la wóoloo ba dënk la réew mi yaakaar naa ni tu dois être au devant de la scène parce que sunu kaaraange tey moom président de la république moom mii nga xam ne ñun moom la ñu wóolu ba dénk ko suñu bopp kon boog il faut que mu jël ay matuwaayam loolu mooy lan loolu mooy euh, wax naa ko mënul précaution yi ñu jël ko président de la république euh, tere na lépp looy xam ne ni mooy. burka burka du la mën a identifier. absolument parce que burka bi tey dama jàpp ni du du mbirum l'islam c'est pas religieux c'est plutôt culturel. Hmm. te tey jii jàpp naa ni mën na nekk benn danger ambulant un danger ambulant bi nga xam ne ni. saa yu laalee réew rek yàq bi day bari kon mbir mi du mbirum politique mbirum de sécurité nationale la kon bu fekkee mbiru sécurité nationale la président dina jël ay matuwaayam en tant que chef d'état alors Aboubacry ban lecture ngeen am yéen ci décision yu gouvernement bi jël les arrestations des imams l'interdiction port burqa c'est excessif wala Pape Alé maa ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi nga defal Union centriste du Sénégal. Mhm. jaarale ko ci sama jëmm man mi nga xam ne maay porte parole parti boobu. donc di nuyu sama nattangoo yi nga xamante ne ñoom lay partagé plateau bi di wax ni li fi nar a jib ci kàddu yàlla na doon njariñ pour askan bi amiin di masaw coono le peuple français nga xamante ne suñu suñu mbokk lañu suñu partenaire lañu ci li fa xew. je m'incline également devant la mémoire de ces victimes mhm. lâchement assassinées. et que l'Union centriste du Sénégal aussi mu ngi condamner des actes d'une telle barbarie. Mhm. Euh, wax nga ko léegi bi koy waxtaan ak sama naataango bi nga ni ko psychose ñun dañoo gëm ni terrorisme dafa nekk benn menace bu réelle. Mhm. boo xam ni bàyyiwul benn nation en rade menace bu réelle la terrorisme amul réew amul frontière. Mhm. ba tax na dafa nekk loo xamante ni. il va falloir que la communauté internationale boole seen doole pour faire face à ce fléau waaye li ñu bañ mooy vouloir communiquer communiquer communiquer ci terrorisme ba terrorisme dem ba indi psychose ci population bi tamit jaru ko loole aussi mën na indi terrorisme dem ba terroriser population yi day xaw a doy waar moo tax ñu jàpp ni réew am na ci question yoo xamante ne bu excès dafay jaadu ñëpp daje bokk ndey bokk baay pour l' intérêt supérieur de la nation et ça c' est important te loolu bokk na aussi li ñuy jooy ci le régime du président Macky Sall. à dire. président euh, régime bu président Macky Sall quand nekk na réew moo nekk na nekk na nekk na régime boo xamante ne champion lañu ci ostracisme maanaam ñoom seen diisoog lépp opposition bokk ci alors que réew am na fu muy toll faut que nit ñi génn seen costume partisan. Mm-hmm. xool luy njëriñu réew mi. la ciy wax rek exemple mooy que ni boo xoolee attentat yi amoon aux états le président Bush bi ñu ko ko waxee bi ñuy xamee ne c'est c'est c'est c'est une question qui engage la nation moom ak le président Clinton tëju nañu waxtaan cest à réew day toll foo xamante ni dafay jaadu ñi ko ŋànk ñoom ñëpp toog génn ci seen ay appartenance partisane taxaw waxtaanee dara waaye bu dee da ngaa génn rek diisoo ak ñëpp waxtaan daal di génn dànqaafoog yooyu day xaaw a doy waa te li sama naataangoo bi wax léegi nee na sécurité nationale xam nga euh, gëmuma ni sécurité nationale parce que bu doon sécurité nationale rek États-Unis du doon victime France barki Dembo Ndiaye du doon victime la Grande-Bretagne Bretagne non plus dafa dépassé loolu terrorisme phénomène la boo xamante ni amul kenn ku ci épargné wu ba tax na ñu ay républicain lañu ay centriste lañu yoo xamante ni gëm nañu ni euh, la sécurité de ce pays l' intégrité territoriale dafa nekk loo xamante ne waxtu bu engagé woo rek dañuy bëgg ay ay ay concertation inclusive yoo xamante ne du bàyyi kenn parce que Pape xam nga woo nga ñu fii ñuy waxtaan ci réew mi mhm. tey jii maara day tàlli yàlla na ba mu mës a am da lii dafa fekk ñu tal ko parce que tey jii maara day tàlli tey jii bu lu mel noonu daloon ci Sénégal yàlla na bu mu am yow doo am doo tala woote ba ñu toog fii di waxtaan kon ci leneen la ñuy nekk ba tax na nii ñu toogee nii te bokkuñu parti mën a toog waxtaanee njariñu réew mi bokk ndey ak bàyyi war nanoo mën a toogee noonu suñu waree waxtaanee loo xamante ni ça menace l'intégrité territoriale ça menace la sécurité du pays ñu bokk ci ndey bokk ci bàyyi bañ cee épargner kenn c'est important parce que ñi ne ci opposition bi les leaders ay nit lañ yoo xamante ne am nañu vécu am nañu expérience politique jaar nañu ci ay responsabilités dama jàpp ni boole leen ci discussion boo xamante ne war naa mën a yokk kaaraange réew mi face au terrorisme waru ci yàq dara parce que c'est des patriotes jusqu'au bout du doigt. alors c'est une réaction Ibrahima une dernier tour de table sur la question pour qu'on avance parce qu'il y a d'autres thèmes qui nous attendent est-ce que l'excès de communication aussi. Mm-hmm. sur le terrorisme l'excès de communication dem l'excès de communication lu dem ba attirer même l'attention des terroristes sur le Sénégal. waaw mais loolu da nga koy wax j'allais dire médias yi mais médias yi médias yi dañuy wax ñu jottali. dëgg la mais mais. ma jox la benn exemple. waaw. y a le forum qui a eu lieu sur euh, pour paix et sécurité. Hmm. on a fait une sortie sur le terrorisme. le surlendemain y a une y a eu euh, rencontre fête des forces armées. Hmm. y a eu encore une autre sortie sur le le terrorisme. Hein? Wow. de telle sorte après Mohamed une autre sortie également. sur le terme après les attaques contre la famille est-ce que du dem ba benn instant l'excès de communication boobu attirer l'attention sur le Sénégal non je, je ne le crois pas xam nga c'est un phénomène aussi grave dangereux qui menace la planète absolument nekkul loo xam ne aussi dañ ko ñaar war a ñàkk waxtaanee dafa laaj concertation partage mon frère wax na ko léegi mais le président de la République wax na à trois reprises dama koy citer il faut qu'on dépasse les clivages politiciens pour ces question d'intérêt majeur waaye loolu su ko xasee ba wax mooy boole na ñëpp nañ bennoo nañ déyoo nañ àndandoo nañ ci waxtaan Pape Alé amul surtout communication wala excès de communication li am mooy il faut que ñu faram fàcce yi yi ba xam fan la jógee xam nga c'est un peu dans les années 80 la yegg si ci ñun bu ñuy comparer terrorisme bi am ci ñun ak bi am en Europe dañuy def erreur effectivement l'Occident wax nga ko il y a des problèmes historiques etc il y a une de la rancune mais chez nous dafa am phénomène bu bees mooy li yëngal Mali yëngal Niger yëngal Nigéria. yëngal Tchad ci Libye yëngal Tchad. jégal yi Cameroun. loolu daf ñu jege ba nga xam ne ce sont nos frères ce sont dañoo jege ba nga xam ne war nañu déyoo ci waxtaanee ci. léegi nag il faut pas que aussi politiciens yi entre guillemets def ko un débat strictement de politiciens ou d'élite déedéet. ça concerne tous les citoyens. waaw man sentiment boobu la am ne dañ ko am na ay politiciens yu ko utiliser comme un moyen de dire que le président ne fait pas ce qu'il devait faire alors que wax nga ko fii ñun ñëpp ñoo ci d'accord mission essentielle bu président de la république mooy protéger les citoyens waa ci mhm. loolu nag ma ne ñun am nañ suñu cosaan suñu aada xam nga maa ngi koy wax sànq ne la su ñu gisee suñu ma jëlee exemple burka foog ma def soit ci tuuti rek gis benn jongama mu sol euh, marinière wala musoor wala taille basse et cetera nga ne ko bëpp lu jéeri et cetera xammee nga ko xam nga ko et en matière de technologie fii recherche bi toll léegi xam nga ñu ngi wax waxu visage ak identité mais même empreinte j'allais dire biométrique yi dañ koy génnee sa bët yi soo demee aéroport dañuy calculer plus de 10 000 pour calculer loolu waaye léegi ñun mosuñ ko xam suñu chef religieux yi mosuñ ko wax confrères yi mosuñ ci wax léegi ñu bëgg ñu indil façon yu bees loolu moo tax ñu wax ko waxtaanee du communication c'est de l'information et de la formation. très bien Sarah réaction. voilà vous savez euh, damay tàmbali fi mu jeexale xam nga Sénégal ñëpp xam ne ne c'est pas un îlot aseptisé boo xam ne. dafa nekk bien sûr absolument on a des voisins Mali et cetera et cetera mais li taxoon sànq may wax ni les occidentaux il faudrait pas que ñuy topp riir bi ni comme ça. ñu fexe ba sukkandiku suñuy réalité li tax ma koy wax mooy li gën ngaa bare gën ngaa bare ñoom ñooy taal taal bi ba pare naa ñu dem taxaw fa nag jouer sapeur pompier te souvent bu ñu koy def day fekk lu am lu am loo xam ne ñoom gis nañ ko xëy na sax ñenn ci dirigeant yi xam nañ ko mais la majorité de la population xamuñu ko ay richesse mën na nekk ay richesse vous savez le Mali liñ ci wax actuellement li li li li ñu reyee Kadhafi ak lan moo tax ñu rey ko les véritables motifs li tax ñu rey Saddam Hussein ak yeneen ak yeneen yeneen moo tax man le Sénégal moi je suis convaincu c'est ma profonde conviction mm-hmm. que euh, mënuñu méngale ak yenn réew yu bare bare ci wàllu terrorisme nous avons un islam très modéré confrérique confrérique qui est le socle de notre stabilité maa ngi jégalu ci làkk tubaab bi mm-hmm. maanaam moo tee réew mi ba léegi cëslaayu réew mi cëslaayu réew mi te li may gis ni ñu koy ni ñu ciy communiquer sax li ci gën a dangereux mm-hmm. mooy ñu ngi bëgg a féewale euh, maanaam jullit yi nekk Sénégal parce que burka même bu fekkente ne ils estiment que nit ku muuru mënoo gis xar kanamam mën na nekk un danger soit mais euh, c'est epsilon ci population bi c'est négligeable c'est quantité négligeable c'est pour ça que li may wax nii parfaitement li may li may li may ooyee la communication à trance sans cette euh, sérénité requise bi nga xam ne en toute situation quel que soit le danger il faut être surtout boo nekkee le responsable suprême booy wax dafa am solo maintenant quand mon frère euh, parle de dialogue y a des questions effectivement yoo xam ne bu buñ ci tolloo il faut un consensus national très fort mm-hmm. on a vu même les, problèmes de la France là Sarkozy ak ak Hollande gis nañu et pourtant tout le monde connaît les relations mm-hmm. même le fait de rassembler Hollande bii nii booba député la woon bokkoon na ñi ko doon ngañ tey mi ngi koy utiliser le même processus parce que le le peuple français l' état français est dans une situation telle que xalaat nañ ne il faut ñu toog ñu diisoo ñoom ñëpp ñu ne day jafe pour nga woon nit ñi mën a waxtaan ak yow ce n' parce que. ba mu ba mu ba mu mu defee son forum là d' abord ce forum les chefs religieux les familles religieuses ñi nga xam ne ces questions religieuses mën nañu ci jàppale état bu baax a baax boolewul leen ci kenn bokku ci. ensuite maintenant booy def sa discours de clôture nga commencé di menacer les hommes politiques ñi nga xam ne ils sont censés te donner leurs idées war mën a toog ak yow diisoo ci question boobu dama ne bu boobaa tu passes à côté te ah, su fekkente ne ay moyen la mhm. bu dee ne ay armes la bu dee ne ay renseignements généraux la parce que le fait de dire le président est, est, est le premier responsable de la sécurité des populations li tubaab di wooye la palissade ko c'est une évidence chef ak loo mënti mel ak sa réew nu mu ci toll buñ la xasee fal tu es le premier responsable de la sécurité de ton pays la stabilité mais communication bi ci nekk c'est-à-dire impact économique bi du point de vue négatif laa bëgg a wax de manière négative yi mën a jur parce que tout il a parlé de tourisme dans son premier sa première intervention xaw na ci junj tuuti tourisme tout le monde connaît les problèmes du secteur du tourisme au Sénégal fi nii mais ni ñu communiqué boo moytu da koy gën aggravé ak yeneen secteurs yoo les conséquences conséquences yi sur le plan économique taxul ñu wax mais dégg nañu chef de l'État quand il a parlé ba mu waxee ba pare mais l'opposition si seen discours bëgg boole chef de l'État ak kilifa diine yi. lan la ñuy wax l'islam moo reconnaître loolu kon chef de l'État bu ko waxee dafa bëgg affaiblir l'islam je suis pas d'accord je pense que si seen discours. il y a de la politique politicienne également. Parce que tout simplement, chef de l'État, c'est un musulman, pratiquant, te sénégalais yëpp teg nañu bët li nga xam ne mi ngi koy defal famille religieuse kon su ñëwee tey jii indi décision lu mel ni si yaakaar naa ni askan bi la bëgg a sàmm te Babacar wax na ko mbir mi mbirum sécurité nationale jarul communication bi ñuy wax mais jarul dajale nit ñi pour wane ne maa ngi waxtaan ak nit ñi am na yeneen canaux yoo xam ne bu ñu ko jëlee chef de l'État mi ngi wax ak ñi mu war a waxal même opposition bi mu wax ni chef de l'État mi ngi diisoo ak ñoom. ñoom ñenn mi ngi diisoo ak. mi ngi diisoo ak opposition bi c'est-à-dire am na opposition. ci biir opposition ah, mais tey jii su ma déggee tey jii l'opposition mais de quelle opposition il s'agit mais bu fekkee opposition boo xam ne reconnaître dañu reconnaître tey jii légitimité président de la République mais en quoi de cas mu toog lu wax rek je suis réaction par rapport à sur ce point. Wow. parce que est-ce que yéen tamit politisé wul parce que man dégg naa fi un homme politique bu ne euh, le fait que ñu jàpp imam yi dañuy xeex l'islam ak yooyu alors que bon c'est une histoire en cours ah mënoon nañ bàyyi ba xam parce que dama jàpp ne suñu force de sécurité défense yi ku ne jàpp rek am na loolu lu tax ñu jàpp duñ euh, tëb rek jàppale nii ci nen. Pape Alé man euh, opposition bi euh, c'est plusieurs partis politiques regroupés li ma xam te ñame koo wax daal mooy union centriste mi nga xam ne ma yor kàdduwam hmm. man xam naa ne ñun duñ wax lu mel noonu du dëgg. Hmm. benn ñaareel ba wax na ko léegi léegi ba wax ni Babacar wax na ko junjuma waaye ñun boo en tout cas ñun à mon niveau ñun suñu parti. en tout cas waxtaanuguñu daal woowaguñu ci waxtaan te loolu ci télévision lañ ne faaw ñu leeral ko parce que nee na am na comme opposition bi ñi nga ñu ngi waxtaan ci ay canaux ñun waxtaanuñu saisir ñu en tout cas consulté wuñu loolu dama koy leeral. Papale euh, gëmuma ni parti ñun euh, opposition am na ci ñu am intérêt politisé lu mel nii. parce que suñuy suñuy njaboot ñooy yeewu ci dëkk bi ñun ñu ci yeewu suñu teranga ne fi lépp ne fi Sénégal kenn ñaanul yàlla dara dal ko kon ñun au premier chef ñoo war a njëkk préserver balaa keneen donc ñun ñëpp ñoo ci bokk yem maintenant. Euh, ni France di xeexee terrorisme mënul bokk ak ni ko États-Unis di xeexee mënul bokk ak ni ko Nigéria di xeexee parce que réew mu ne ak ses réalités waaw c'est ça c'est important loolu tamit ñu bàyyi ci xel mm-hmm. moo tax ñun Sénégal aussi am nañ suñu ay réalités yoo xamante ni ci loolu la ñu war a sukkandiku pour mën a xeex lii ba tax na union centriste du Sénégal li mu bëgg mooy état bi bu mu def euh, suivisme bu mu def mimétisme ci action bi mm. c'est bëgg a wax ni rek par exemple la France ni mu koy xeexee nii la ñun mënuñu ko xeexee noonu parce que on a nos réalités propres à may daane rek di wax ni am na loo xam ne état bi war na ko jouer war na koo jëfee su fekkee ni aussi euh, terrorisme bii nii bëgg na cee taxaw du rek nga nga nga indi ay normes sécuritaires autour du pays mais nanu xalaat aussi lan mooy yóbbu nit ñi ñi dem ci loolu. très bien c'est important la ñu yóbbu ci loolu yaa <laughs> yaa ngi bëgg. sàq mi sama laaj parce que dama bëgg ñu xóot parce que gars yi sama gars yi nee na ñoom am nañ 3000 ñaata 3032 milliards. 3022 milliards. 3022 sax yokk 390 millions. parce ah. que c'est ça le chiffre exact du ah, budget. ils sont ils sont de grands champions milliards. alors 390 millions. gis naa ngeen def benn communication bu mag si seen budget euh, ren bi ça veut vraiment ren moom chapeau pour euh, alors c'est quoi le budget c'est quoi. non en réalité. euh, on a parce que li ko lal mooy président dafa joxe instruction yu leer. 3 000 ñaata nga wax. 3 022 milliards virgule 390 millions. man yokkaloon naa sant 10 milliards. dama baax waaw c'est ça le budget. c'est dans le budget ci budget boobu. mosul loolu mosuñu am am solo ci budget bi mooy ça c'est l'instruction du chef de l'État avec il y a plus de 1000 milliards yoo xam ne c'est destiné à l'investissement parce que loolu aussi dañ ko doon xaw a dañ ko doon xaw a négligé lépp lu ñu amoon ci budget rek daanaka fonctionnement la doon du ñu ñaata ngeen dugal euh, ci ci il y a 1048 milliards yoo xam ne investissement la. loolu foog ma taxaw ci tuuti mais effectivement ñu ngi commencé dérouler PSE 2014 am ay résultats yu mag yu ñu am 2015 danaa ci ñëw léegi. ci résultat yooyu c'est important ñu wax lan moo tax budget 2016 bi di renforcer loolu cette transformation de l'économie parce que on a misé sur l'agriculture et l'agroalimentaire cette année kenn mënul naatable ne on attend plus de 1 million de tonnes d'arachide loolu moo nekk nawet bi barkeel na alhamdulilah pour ñun ñëpp mais nekkul gerte gi rek ceeb bi on attend 900 000 tonnes le Sénégal pour la première fois dafay exporter des fruits et légumes bi ñu wax ne dafay naxasaay jeex na c'est l'industrie et la transformation mille tonnes de pulpe vendues à l'étranger loolu teg nañ ci suñu bët ce n'est pas fini même dans le domaine de la pêche li ñu am li ñu liggéey ci wàllu pêche aujourd'hui ak sécurité bi président jox napp napp gi jox leen plus de 5 milliards pour subvention moteur pirogue loolu moo nekk ce sont des résultats qu'on a déjà engrangés sur le plan économique mun naa sax ñëw ci énergie mais loolu xam nañ ko dépassé parce que ñëpp gis nañ ne am nañ une tendance très très positive mais en matière d'investissement état daf ne man décidé naa sama koom ma téye ko. moo indi mille vingt mille. mille quarante huit milliards ku may indi ndimbalit da ma ciy fekk. loolu moo tax le dans le volet éducation université gis nañ li ñu def les chantiers sont là université du Sine Saloum université Amadou Mahtar Mbow. l' institut de de formation professionnelle. Sara alors table bi rafet na de. mais non non non c' est que loolu moo nekk. Ah? non loolu loolu loolu kenn mënu ko naatable. léegi xaaral ñu laaj ko bàyyi bàyyi daaneel foofu. daaneel foofu après ñu laaj ko ndax moom yokk ci nag ne. waaw. président dafa dimbale néew gi doole ji cette année pour on a prévu 300 yoo xam ne dañu am dimbalu état mu nekk une justice sociale et une redistribution waaw gis nga nag jëf genre jëf yooyu ni ñu waxee sànq ci terrorisme ne war nañu ci am consensus ak unanimité lii moo nekk ce sont des chiffres clés kenn mënu ko naatable moo nekk dañ ko war a rafetlu ah, loolu c'est l'occasion de féliciter le chef de l'État et son gouvernement et son gouvernement voilà Pape <laughs> Euh, qui depuis 2012 euh, s'évertue à faire euh, yi yiy bëgg a imposer sénégalais yi ay vessies pour des lanternes c' est ça malheureusement. c' parce que non xam nga sànq da nga ne il faut ma féliciter chef de l' état. ah le tableau est tellement idyllique tellement beau que tu te dans un autre Sénégal. parce que en vérité xam nga man dama réfléchir xool peut-être sama xam-xam dafa tuuti mais gisuma benn réew ci àddina boo xam ne budget bu def un bon croissance nga woote conférence de presse minute du ñëpp toog. toute la république pour wax ne pour la première fois alors loolu dafa doy waar cest di que dafa am yoo xam ne moom lay nëbb. lan lay nëbb. li muy nëbb mooy euh, xam nga un budget monsieur Mbow moom ko gën a xam prévision la. Mmh. la preuve bi ñu defee seen conférence ba pare. même pas une semaine ñu lancé ay emprunt obligataire parce que budget bi dafa am loo xam ne. dafa am su sunu koom-koom moo koy jur. am na loo xam ne suñuy xarit ci biti ñoo ñu koy eh, jàppale. am na loo xam ne dañ koy lebi pour fay ko. man ak yow ak sénégalais yëpp ñoo koy fay. ces 3022 milliards il faut enlever les 50 milliards yi nga xam ne ñu ngi koy wër ah, ah, ah, sur un taux de 6 pour cent sur 10 ans et cetera emploi bi ñu lancé barki dem xaw ma lu ñu ci jëlee pour l' instant. alors pour dire que simplement et ensuite maintenant ñun bi ñu fiy jógee malgré tout ce qu' ils ont dit ñoom biir na leen ne li ñu fi bàyyi niveau bi ñu bàyyoon budget bi. jéggiwoon na deux cent deux mille sept cent deux mille neuf cent milliards bi ñuy ñëw c' était presque six cent quatre vingt et un milliards à peu en deux mille donc bu ñu def comparaison ñun maanaam jéego yu ñu defloo budget bi ñoom defuñu ko te defuñu woon conférence de presse ensuite le taux de croissance du budget boo jëlee at par at ñun 2005 pic bi mu atteindre musu ko atteindre te ba léegi musu ko atteindre. ma ñoom nee nañu da ngeen ko doon def pour fonctionnement rek pas pour. investigation déedéet déedéet fonctionnement bu doon fonctionnement rek. Ah. Mhm. Sénégal <laughs> ni ñu ko transformé parce que Sénégal émergent l' émergence la base de l' émergence c' est les infrastructures li ñu réaliser infrastructure nañu xaar ba ñu def lu mel noonu ba pare. bala ñuy wax ne mhm. ay fonctionnement la ko def xam nga man sax endettement jël bor ñëpp xam nañ ni sa peut servir de levier. endettement mhm. à condition que tu en fasses un bon usage notamment dans les investissements. nga def la investissement boo xam ne ëllëg dina jur loo xam ne dina booster économie bi mais ñoom il parle de 2016 on va voir ce que donner mais bu ñu fi toogee ba léegi ñu ko nañu wax benn yoon à part le le le truc de Diamniadio wala le le le truc de Ndaxonga euh, chez mon ami euh, <laughs> de de Foundiougne ah lan lañ fi def xam nga naxaate bi dafa ëpp dafa jéggi dayoo. tout à l'heure le FMI le a parlé de de du classement du Sénégal dans parmi les pays pauvres ils ont rué yuuxu fu nekk di xaru xataraayu mais dama ne loolu yëpp nañu ko teg fële su mi seen costume yi mon ami Mbow je lui conseille de prendre le le bus paye wala couleur dugg ci car bi wala taxi rek wër ci dëkk bi laaj nit ñi laaj sénégalais ñoom bu ñu doon classé Sénégal yàlla xam na ne dina dina classement dina yées loolu. <laughs> te loolu moo gën a am solo. kayita voilà donc merci beaucoup moi je pense que. le budget. non fi mu fi mu daanalee foofu laay ñëwee parce que tey ji su ma déggee tey. Mhm. Euh, mes camarades. non mes frères moi je suis pas ton camarade. d'accord <laughs> voilà. du PDS aujourd'hui dire voilà. que euh, Sénégal nañ ko parmi les vingt cinq pays les plus pauvres mais bu leen ñu ko imputer. non man ça c'est votre actif. <laughs> parce que jàpp naa ni en trois ans le régime de Macky Sall mënul def liggéey boo xam ne tey jii ñu jox ko résultat. yàq moo gën a yomb. te tey. Pape Alé da nga may may ma wax tuuti. Mm, xam nga. budget 3000. 32 milliards comme ni nga ko waxee. 3022. jàpp naa ni c'est réaliste wax na ko budget ay dépenses la. ay recettes la ay prévisions la. mais tey bu ñu jàppee aujourd'hui la vision président Macky Sall ak euh, stratégie bi nga xam ne ni teg na ko sur la place sur la table muy le PSE jàpp naa ni. ñoom gis nañ ko sénégalais gis nañ ko ay chantier yu am solo dañu wax Sénégal émergent bu ñu waxee émergence wax développement te développement dafay reposer ci ay principes fondamentaux tels que le principe de la solidarité loolu tax aujourd'hui si vision président Macky Sall gis nañ la couverture maladie universelle sénégalais nu mu gën a ndóol bu feebaree war na faju tey ji nga xool euh, la couverture maladie universelle euh, les bourses de sécurité ñu jóge si loolu également les chantiers la VDN prolongement de la VDN wax na ko léegi c'est des infrastructures pôle urbain bu Diamniadio c'est des infrastructures war a yeggali euh, l'aéroport Blaise Diagne l'autoroute Ila Touba ak yeneen i yeneen je pense que aujourd'hui le chef de l'État ak son gouvernement c'est pertinent ñu dem vers un budget bi nga xam ne ni dina yegg ay 3 000 milliards c'est tout à fait normal Pape Alé waaw maa ngi reetaan. <laughs> yaa ngi ree mais bëgg a looy ree lan non c'est que man ñii dama am ak ñoom problème xam nga ñoom <laughs> <laughs> c'est-à-dire ñii dañoo nekk dans le discours de début de mandat. parce que bu ma leen dégloo ñuy waxtaan dama yaakaar ni Macky Sall dafa mel ni démb lañu ko fal le président Macky Sall que ñoom il tendent vers le 4/5e de l'assiette temporelle c'est c'est grave. xam nga Abdoulaye Wade bi muy bi muy egg ci quatre ans de muy dem di nekk euh, trois ans de mandat boobu Sénégal wax dëgg yàlla ñu bëri xam nañ xam nañ ni dëkk bi am na léegi nag Euh, li tax may wax ni ñi dama am ak ñoom problème xam nga Fapal réew ñu ko gérer ci ay slogan ay promesses d'intention ay casting approximatif pas suffisamment préparé des réformes prometteurs xam nga yooyu dafa doy fu mu nekk nii parce que le triomphalisme de très mauvais aloi bi ñu def ci. Euh, budget bi. Mhm. def ko une déclaration en grande pompe mais le budget euh, l'évolution d'un budget c'est un c'est un acte banal. dans une démocratie dans une. c'est-à-dire wax ci euh, budget bu yokku jóge ci pàcc bi àgg ca pàcc be loolu wax dëgg fa yàlla euh, bu ko Macky Sall mënul woon a def man xaw ma lu muy def ci bopp Sénégal xam nga il faut que sénégalais yi xam fan la budget Sénégal nekkoon 1960 en 1960 le budget du Sénégal mu ngi woon ci 19 milliards. président Senghor moo ko jëlee 19 milliards yóbbu ko 193 milliards mu def. une hausse moyenne annuelle de 11,67 pour cent président Abdou Diouf ñëw jëlee ko 193 milliards indi ko à 831 milliards def une hausse moyenne annuelle de 7,98 pour cent Ablaye Wade bi mu ñëwee moo jëlee budget bi 831 milliards indi ko à 2344 milliards def une progression une hausse moyenne annuelle de 9,02 Macky Sall jëlee. budget Sénégal ci 2344 milliards ya fa Ablaye Wade bàyyi woon indi ko à 3022 milliards xam nga ñaata la def ci hausse moyenne annuelle. 6 virgule 55 pour cent. donc Macky Sall bu xoolee ci prédécesseur mi moo ci gën a néew hausse moyenne annuelle bi mu def où est le triomphalisme dans tout ça il faut arrêter. ans. il faut xam nga ba nañu bàyyi di nax nit ñi xam nga fii mu ngi mu ngi expliquer ay. Euh, autoroute ila Touba ay nangam ak nangam yow barki Dembo Ndiaye la FMI euh, génn na fii ne la yow sa PIB par tête d'habitant 936 virgule 934 virgule 6 la. classé la ci réew yi gën a ndóol ci ci àdduna bi ñaar fukk ak juróomi réew yi gën a ndóol ngay boxe ci même catégorie que ay réew yi mel ni Sierra Leone Libéria nga xamante ni dañoo nekk ci ay décennies de guerre civile ak ñëw yokkaat ci aggravation euh, Ebola ñëw ñëw na ci yow Sénégal nga ne ca loolu ñoom ñu daal di génn ñoom ñëpp mel ni dañ leen wax ni ku riposté wul ñu dàq la ñëpp génn commencé coow li mel ni tulleeg male ku ne génn di riposté pilit daal di génn ne leen yéen comme da ngeen wax ni FMI euh, li indicateur bi muy jël mooy le le PIB PIB doyul pour estimer le niveau de nangam ak nangam ak pays donc loolu doyul ñoom programme des Nations Unies il travaille sur euh, le euh, l'IDH IDH ñëpp xam nañ ni moom mooy mesurer le développement humain te développement humain boobu ni ñu koy mesurer day jël ay indicateurs yu mel ni l'espérance de vie te l'espérance de vie boobu da nga ci dëxëñaale moom li mu wax léegi léegi c'est-à-dire santé nga boole ci PIB boobu ñu bañ ñoom ak lan. beneen indicateur bi nekk le niveau d'instruction boo ko combiné nga xool ko mu ngi ñu classé ci 24 pays yi gën a pauvre ci planète bi nga xamante ne nombre de pauvres ci réew mi tey jii mu ngi jógee de 6 millions dem ba 7 millions entre 2010 et 2015 su sous sous sous le magistère du président Macky Sall waaw léegi ñoom loolu dafa waroon a doy pour que ñu analyser froidement lan moo tax Sénégal sooke noonu te expliqué ko nee na loolu ñu ngi ko de l' ancien régime mais ce n' est pas rigoureusement vrai parce que en 2012 bi Abdoulaye à la tête du pays le PIB par tête d' habitant était de dollars ñoom ñu ngi indi à dollars. alors c' un recul. il faut accepter. je pense que c' important. à ce stade débat bi débat bi nag. waaw waaw nekk nii euh, taaju na taaju na. mais foog ñu indi ay firnde. Euh, le Sénégal en 2012 suñu niveau endettement. jéggi na dayo du ma wax waxu énergie jamais parce que loolu dañ ko dund ñun ñëpp y avait plus d'industrie y avait plus d'économie finance publique gâchis bi fi am incroyable yaa ngi dégg non eh, foog foog moo wax ak Sara ah moom laa wax mon jeune frère euh, Aboubacar ma ne ko dama bëgg mu noter rek mu tontu gis solo li am solo ci am depuis 2012 mhm. de 2012 à 2014 c'était le yoonu yokkute mais Sénégal foog aussi ngeen bàyyi na seen bopp réew ma ndool la dëgg la c'est un pays pauvre moo nekk mais comme c'est un pays pauvre nag moo tax président teg plan Sénégal émergent jëkk teg yoonu yokkute teg plan Sénégal émergent pour ñu liggéey génne Sénégal ci loolu boobu arrêtons de rêver pendant ans on nous a miroiter des milliards un pays qui fonctionne dëgg du dëgg mosul nekk Sénégal c'est un pays pauvre affaire FMI yéen a koy tudd xanaa FMI tey li ñu jubóog ñoom mais FMI kay li ñu ci gardé woon mooy valise bi ñu doon neexal Segura et cetera <laughs> <laughs> la le Sénégal a besoin d'investir état bi jël en charge maa ngi milliards pour investissement autoroute Ila Touba bi mu milliards génn vers le nord Ranch Dolly le mur a commencé depuis le mois de juin l'agriculture nee aujourd'hui on va atteindre tonnes de riz c'est du concret ceeb bi nekkatul sax ne euh, dans le nord le sud am na dans le centre est et cetera l'arachide il a ce qu'on appelle le réveil de l'industrie judduwaat na analyse ICS et dans dans le secteur du ciment c'est la concurrence dem na dans le secteur du du pétrole gis ngeen approvisionnement Sénégal ni mu taxawee léegi xam nga nag aussi mënuñ mënuñ rester ci suñu débat politicien te du ngeen wax du ngeen teg baaraam ci suñu résultats yi ñu am 2015 laa de waxuma 2016 2016 daf ko nar a gën renforcer dans le domaine de l'emploi xool leen les efforts qu'on a fait dans le domaine agricole communautaire xale yi tey ils préfèrent être à Sédhiou à Kédougou ñu ngi fay ñu ngi fay am ñu xëy di fa am liggéey <coughs> tout ça sont des éléments à engranger mais nag muñ ne lépp lu ñu def lu baax rek ngeen un débat politicien temps wadd et cetera non foog foog ma daanal quand même daanal ci lu am solo xam nga xam nga Sara xam nga lecture budget foog nga xam fan lañ Sénégal jëlee confiance au niveau des bailleurs li tax suñu économie taxaw parce que xam nañ fi ñu jëm moo tax Bayeri Sukuk finance islamique jox ñu xaalis milliards la ñu a leb am nañ ko le plan Sénégal émergent est presque financé à hauteur de 3 cinquième mais ñoom duñ sànni seen xaalis suñ ko dugal ci benn économie rek ça veut dire que environnement des affaires wóolu nañ ko loolu nag ñi nañ ci mm-hmm. teg seen bët tous les jours mm-hmm. l' environnement va mieux le Sénégal va mieux <laughs> et ça c'est la xam nga Papa Ali nee na yéen ba mi bàyyi leen fi dara ça c'est c'est c'est mais bon ñoom ñoo gën a xam ne loolu euh, dafa waroo ak parce que ki nga xam ne moo leen jiite tey dañuy fàtte ne def na juróom-ñetti at Ablaye lay di ko ne defal nii muy def il a d'ailleurs dit moom nee na il assume ce bilan là. Euh, leneen li ma ciy teg mooy xam nga man damay bañ ñu toog fii euh, je peux faire comme tout le monde euh, ay chiffres machin et cetera parce que ñoom en 2012 ils ont fonde leur gouvernance sur la vertu. gouvernance vertueuse sobre et cetera mais côté boobu rek mën nañ ci wax fii ba suba. Ah, bisimilah lu tax. non xoolal dañ ci gis leneen. non non non attends rek gis nga ce qu'on appelle euh, les les les disons les les dépenses pour achat de biens et services votées dans la loi de finances 2012 su Wade ñu ngi yoon ci 345 milliards ñoom ci année 2012 ils sont passés à 353 milliards la loi LFR ils sont allés à n'est-ce pas pour 2015 y' a il faut ils sont allés à milliards encore secteur boo jël pasar pasar parce que bu ñu waxee naan euh, pour débat politicien en réalité li tubaab chez l'autre ñoom ñooy débat politicien bi ñoom c'est les maîtres en cela mais bu ñu waxee rek gën a bu leen lan lan lan la d'accord. dama bëgg ñu wax ma fan lañu ko réalisé. Sénégal yaa ñu déglu. xam nga li am solo xam nga Pape Alé tudd ko Pape xam nga li am solo. Mhm. du moom Mbow bi may déglu fii wala wala Keita li am solo mooy sénégal yu ñuy seetaan. Mhm. parce que en vérité li am solo gis nga même ñi nga xam ne ils la carte de la paire ou du PDS ou de l'UCS ce n'est pas pour, pour, pour ce n'est pas véritablement li loolu moo moo moo gën a am solo Sénégal fi ñu toll nii. Mhm. cette masse silencieuse qui souffre ñi ngi koy toroxal tey ñu ngi toog di xaar ñoo ñoo gën a am solo. Mhm. il parle de de de bourse familiale 25000 francs yooyu jox benn njaboot. sans tenir compte du nombre de personnes qui qui qui, qui y dans cette famille. nga ne 25000 francs. 100000. non je parle pas du nombre de familles. mën nga jox 25000 francs Pape Alé yow sa njaboot. nga am 8 personnes mën nga jox ma 25000 ma considère comme pauvre j'ai j'ai j'ai peut-être 15 personnes à nourrir je parle pas de ces considérations mais xale bi nga xam ne xam nga njàng école mooy le meilleur escalier social kooku ñëpp ànd nañ ci man doomu béykat la je l'assume. Mhm. soo gisee mën a ñëw toog fii di wax c'est l'école publique qui m'a d'y arriver keroog maa ngi déglu le doyen Landry Savané avec beaucoup de courage et d'honnêteté nee na dañ ko dafa doon bind je crois dafa bind benn téere muy dédicacé ñuy wax parcours am ñëpp xam nañ ne ko mënoon jàngale génie la woon il a reconnu que boo gisee mu am résultat yooyu entre autres c'est parce que booba internat dafa amoon et FMI machin ak le fameux ajustement structurel moo taxoon euh, internat ñu supprimer ko Ablaye Wade bi mu au-delà des collèges de proximité de la case des tout-petits les centres universitaires euh, régionaux qui permettent xale bi di jàng kër papam ba egg université du du du dem beneen kër nga xam ne problème mu njaatige sax ni ñu koy waxee ci kaw gi. taux de déperdition scolaire bi mu jur ak njàng yi mu yax kenn mënu ko xayma may ma rek famille boobu nga dimbaleen ko mu am ay conditions yoo xam ne wala doomam nga jox ko bourse bi Ablaye Wade doon joxe fii te nga supprimer ko. mu mën a jàng réussir pour mën a xëcc famille am jëlee ko ci ndool bi moo gën nga leen di sarax vingt cinq mille francs yu jox par mois donte nag gis naa ne am na ñoo xam ne ils en besoin xam naa ko te li ñu leen di jox du du du poche kenn lay jógee c' est l' impôt de tous les salariés ñun ñëpp suñu suñu sunu sunu suñu yëf la. ci mhm. nga wax ji. Mhm. donc loolu moo gën a am solo xam nga la fait de venir ici naan euh, euh, on va faire l'autoroute Ila Touba même autoroute Ila Touba bi euh, man j'ai beaucoup d'amis à Touba. Mhm. dégg nga wax ji. nga daanale foofu <laughs> Serigne Touba Serigne Touba li mu liggéeyal Sénégal. li mu liggéeyal askanu euh, euh, euh, Sénégal li mu liggéeyal doomu adama tout simplement. kenn mënu ko xayma. mais boo bu ñu waxante dëgg mais c'est un projet politicien c'est ça la vérité. alors oui moi je pense que si c'est un projet politicien et que dina régler améliorer conditions de vie des populations c'est bien. non je je reviens encore une fois. Mbow ba ngay wax ah, dañ a il a nga dama ni a trouvé je voulais dire en quoi c'était xam nga tey wax naa la souvent li am solo mooy nañu positiver ah mais su fekkee tey régime bi lu mu def ñu xool ko ci angle politique politicienne. Euh, vraiment defagul lu bari moo tax. j'ai des problèmes avec l'opposition. attends moo terminer. plus que vous xam nga. Diassé Diassé sànq wax na ni. évolution budget yi la parler du. de Senghor de Senghor jusqu'à Wade mais 9 pour cent mooy euh, taux bi gën a. rëy et c'était avec Abdoulaye Wade li mu wax. et mu ñëw si président Macky Sall. ah non non j'ai pas dit il ça. a parlé de 6 pour cent. waxuma loolu de Senghor moo def attention dama ne. Senghor laisse-moi terminer laisse-moi terminer tu auras la parole. ah mais parce que da nga ma tudd mais je dis tey. moo ci def évolution de 11 60 président Macky Sall 6 pour cent en 3 ans. pense que ça c'est une performance économique stratégie yi nga xam ne ni amoon na fi la stratégie de croissance accélérée amoon na fi la stratégie nationale de développement économique et sociale amoon na fi mm-hmm. comme lu yoonu yokkute le développement euh, le document stratégique de réduction de la pauvreté amoon na fi mais ñun inventé wuñu nous avons résultat yi nga xam ne ni yi nga xam ne ni c'est la banque mondiale mooy que le taux de croissance dans notre pays a toujours été faible mais chef de l'État aujourd'hui ba mu ñëwee indi PSE mais ñëpp reconnaît nous sommes sur la bonne voie critique on accepte ça nous permet d'évoluer mais sénégalais ñu ngi teg si bët que le président Macky Sall est proche de la population te tey weddi gis bokk ci boo demee sur la VDN ñu ngi koy yeggali ñu ngi koy def weddi gis bokk si pôle urbain waxaan naa ko léegi la carte universitaire surtout mais aujourd'hui tu vas à l'université soixante-dix mille étudiants ñoo fay yeewoo population boobu ëpp na sax population Bambey par exemple hmm. kon dama jàpp ne tey président de la République ay chantier yi am solo yi nga xam ne teg na ko fii sur le plan social sur le plan économique donc dama ne budget bi war nañ ko mën a yokk waaw ah. euh, dasi euh, nan nga mën a expliquer pourtant y a des rapports positifs yu ndefan doing business mais justement moo Ibrahima oui doing business Freedom. Euh, l'indice moo Ibrahim xam nga hmm. ñoom euh, moo tax léegi-léegi wax na ko nee ne euh, banque mondiale moo doon wax ni taux de croissance Sénégal dafa mës di faible pourtant nangu na ko c'est ça le problème maak ñoom c'est-à-dire banque mondiale boobu waxoon ni taux de croissance Sénégal dafa mës di faible ba ñoom ñu indi PSE léegi teg ko mais banque mondiale boobu moo ni l'indice de développement humain au Sénégal hmm. c'est 0.48 placé ñu 163e place sur sur moom moo ni un sénégalais sur deux ñu ngi dund ci précarité pauvreté extrême ñoom ñoo ni 6 millions de sénégalais jëm 7 millions maanaam pauvreté ndóol jóge na ci 6 millions dem ba 7 millions ñooñu leen waxoon ñooñu ñoo ko waxaat changé wuñu euh, Pape Alé il faut que ñoom ñu daal di analyser froidement la situation xam nga euh, l'indice moo Ibrahima. Mhm. bi mu waxee ne dañoo stagné ci ci ci ci ci top 10 bi 9e place. ñoom ñëpp kenn waxu ci ne ñëpp a tàccu kontaan waaw nangam ak nangam FAO sax primé nañu sur la bonne gouvernance nangam ak nangam en matière de xam ak kii ak yooyu ñëpp ko réel mais loolu jarul jarul jarul jarul jarul jarul déclaration bu rëy xamul tax damay faral di wax ni euh, loolu mu ngi mel ni l'élève bi nekk classe de terminale sama sama doyen mel ni am doomam boo xamante ne dafa xarañ trop mën jàng trop mu wóor ko ni kii mën na am bac ak mention mu dem classe daal di ñëw jàll bac deuxième tour nga loolu kooku waroo ko waroo ko féliciter parce que xam nga ne waroon dem au-delà parce que le Sénégal a les moyens d'être dans le top 5 c'est ça la vérité aujourd'hui léegi léegi léegi am na lu mu wax ba junju ICS waaw léegi loolu nag dama ci sawar a taxaw parce que man mbooro laa dëkk sam papa liggéey ICS ba retraité waa mbooro di ma déglu industrie chimique du Sénégal nekk loo xamante ni da leen a da leen da leen da leen da leen a soxal huit cent emplois loolu xëy na waa APR seen bopp la existé wala seen i mën naa la ni depuis indiens yi jël usine bi ba ñoom ñu koy jëlaat léegi joxaat ko les Indorama ñu yor ko gaa damay nangu pour dire à mon frère que ñu nekkuñu ay nihiliste yoo xamante ne dañuy critiquer lépp ña fay liggéeyee xam nañu ne ñu ñu ko jox léegi ñu ngi commencé di investiraat pour renouveler outil productif bi c'est salutaire on accepte et je vous félicite de passage parce que Mboro bu industrie du chimie chimique du Sénégal développé man dama ci am njëriñ waaye recrutement ngay wax mooy problème majeur bi à parce que depuis bi indien yi jëlee usine bi ba tey jii recrutement amu fa ñëpp a ngi toog di xaar nag pauvreté bi egg na foofu ci proportion yoo xamante doy na waar mhm. il est important ngeen eggee loolu le président Macky Sall wax ko ne ko les jeunes de Mboro ñu ngi liggéey et bu ñu war a aborder a juste fi ma bëgg a daaneelee rek mooy di la wax ni yaa ngi fi wax léegi-léegi gouvernance sobre vertueuse ak nangam ak nangam wax ci lu bari li ma bëgg wax foofu rek mooy que Pape Alé yaa ngi fàttaliku waxtaan bi ñu fi amoon su l'endettement de notre PIB waxoon nañ fi ni ni ngeen di doxee baaxul da ngeen ñëw indi la gouvernance sobre et vertueuse ci yoonu yokkute taxaw ni du ngeen génn endetté wu da ngeen di vivre par rapport au au moyen du bord loolu ça vous a fait perdre deux ans de mandat c'est après que vous avez compris que il fallait sortir s'endetter capter le financement extérieur voilà signature du Sénégal était bonne après après deux ans aujourd'hui ngeen commencé ngeen doog a lancé le PSE et que liñ ragal rek mooy PSE bi fi ngeen ko lancé am nañu yaakaar ni bu résultat am war a génn yéen du leen fi fekk. alors du leen fi fekk parce que ñun dañuy ñëw la campagne de commercialisation de l'arachide parce que et puis et on va en mm-hmm. parce que Sunuwor ñëpp a ngi jóg. di wax sunu woor sunu woor sunu woor dañ koy jël te affaire boobu daa foog ne war nañ ci teey état bi war na ci bu baax a baax. waaw xool suñ koy privatiser kan lañ ko nañ lañ ko war a jox ak nu ñu ko war a privatiser. waaw Pape Alé dëgg la bala may ci campagne arachidière bi. foog ma redresse dama koy redresse rek damay redresse tuuti rek. Mm-hmm. FAO euh, félicité wuñ ci bonne gouvernance c'est la réduction de la faim. mon frère c'est ça je confirme c'est important ICS c'est les emplois directs et indirects le secteur y repart c'est normal maintenant mosuñu wax ne yoonu yokkute daje dañu on va assainir les finances publiques parce que yàq bi dafa bëri woon les frais de téléphone les logements conventionnels et on a assaini les finances publiques mais Sénégal 109000 donc ñoo jël plus presque milliards du budget de l'État ñoo koy fayee ko il fallait que ñu am efficacité dans la dépense publique loolu lañ taxaw campagne arachidière Fapal sawar naa pour wax ci lool. parce que neexul ba neexul nag. mais ñu ngi ci jeexitalu émission bi aussi. dëgg dëgg la dëgg l' a fait un effort colossal d' abord ko démb. ba barki dem ba le 16 lu fi mosul am un million de tonnes d'arachide c'est ce qui est prévu mmh. les industriels reprennent confiance Sonacos Suneor dëgg la état jàppale na ko 11 milliards ne na engagé na pour jël 300 000 tonnes Ex-Novasen Copéol 200 000 tonnes c'est l'engagement des industriels pour la filière et la transformation CAIT mooy nekk Touba 80 000 tonnes jiw semence de qualité 50 000 tonnes de réservé Et le ministre de l'Agriculture l'a dit la dernière fois, on a le meilleur ministre de l'Agriculture du Sénégal de tous les temps. En réalité, 150 000 tonnes d'arachide pour l'exportation. La filière revit. C'est pas la filière arachide production tout court. Oléagineux la transformation huile. Suneyor dëgg la amoon na ay problème d'investissement, de structure, d'effectifs, de process. loolu jeex na parce que l'État a changé de formule et de, de stratégie industrielle yokku ci nag quand même ci ci ci mbirum gerte gi mais le prix c'est resté à 200 000 200 francs le kilo minimum D'ailleurs, c'est l'occasion wax béykat yi leen félicité leen parce qu'ils se sont organisés am nañ Seydina fa la ñuy waxtaanee producteur yaa nga fa. Mhm. transporteur yaa nga fa industriel yaa nga fa. alors bu kenn jaay gerteem ci mbapat yi nañ ko xaar nañ ko ne s'est jamais vu dans l'histoire du Sénégal. loolu nag aussi ça va foog de l'histoire du Sénégal. a démarré avec. restons sur l'arachide très bien très bien très bien Sénégal en tant qu'État indépendant. et résultat viennent après les résultats de d'autres régimes et cetera. l'opposition d'aujourd'hui c'est le poids de mais ça c'est des principes de base yoo xam ne il faut ñu nangu ñu d'accord si. su ñu bëggee yéen bala ma ci yegg. je tenais à dire une chose. et ça gis nga le PSE là. il est en train de dépouiller tous les secteurs sociaux de ce pays. éducation santé. énergie cest dire que on n'aura pas le temps. mais xam nga li ma bëgg ñaan Pape Alé léeg-léeg gis nga bu ñu ñëwee ci plateau y mel nii balaa ngay commencer. il faut parfois faire genre review c'est-à-dire que li li ñu jot jotoon wax ci yenn kii nga nga tegal ko parce que li muy wax nii sur la campagne arachidière viendra un jour di koo gis ne li muy wax nii méngawul ak li li béykat yi dund si kaw gi parce que yow yaa ngi naan ñu ngi félicité béykat yi mais ñoom duñu leen félicité. pour leur organisation. non non non quel que soit le motif pour le vous les félicitez. ils ne peuvent pas vous féliciter parce que vous êtes en train de les appauvrir. lu tax non mais attends Pape Alé mënoo jaay nit ki jiw mu dem. ji ñefe di leb di dund période de soudure mu traversé ko sans aucun appui de l'État dégg nga wax ji mu dem bay war a toll fu ñuy jaayee war a fayal doomam mu jàng comme moom ak Mbow ak Keita ak ñeneen war a faju dégg nga wax ji war a fay ay inscription doomam xam ne yokku nañ ko ba pare changer les conditions d'octroi des bourses à l'université ak ak et dans beaucoup d'autres euh, centres universitaires mhm. béykat boobu nga ne ko léegi loolu li ma la jaayoon deux cent fra pour nga dem ji ko machin boo ko taaraaree nga dindi ci toutes les impropriétés là da ñëw ma jënd ko si yow 200 francs à nouveau sans compter la qualité de semence parce que loolu itam nit ñi wax nañ ci waxaat si ils ont crié sur tous les toits que semence machin certifiée mais la réalité moi je suis, je suis du monde rural. ko béykat la doomu béykat la j'y vais quotidiennement mm-hmm. le béykat yi dund mais c'est diamétralement opposé ak li ñuy soutenir sur les plateaux et ça on verra leen ñoom béykat yi waxtaan nañu. sama grand frère mu ngi si insister tout le temps mooy les bourses des étudiants mais nous nous avons fait le toilettage. toilettage oui gis ni c'est des ay bourses fictives rek du FMI c'est encore ça. Le, PSE e, c'est un, plan de redressement structurel bis c'est ça la vérité <laughs> je peux vous prouver ça avec des, des à l'appui. Euh, Sénégalais yi ñu ngi ñuy déglu. ah oui moi je que. Euh, l'éducation nationale a été amputée de 6 milliards. dañ lay déglu. voilà merci Euh, mi ngi insister si wàllu bourse balaa mooy tontu question bi nga xam ne. posé ci gerte waaw pour parce qu'on avance. mooy mooy bourse bi ñun def nañ toilettage gis nañu ay bourses yu fictives la dañ koy dindi te la bonne gestion bi nga xam ne ñun incarné nañ ko wone nañ ko moo tax ba président de la république aujourd'hui mën a def une gestion rationnelle. mën a jàppale ñi nga xam ne ay néew doole parce que le chef de l'État il a dit. en donnant 500 000 femmes des adversaire am des diplomates. adversaire c'est pas les partis politiques. adversaire am les inégalités sociales. mais su may ñëwaat encore par rapport ak sa euh, question bi nga wax. ah tey jii pour la première fois comme il l'a dit à pareil moment nous lancer la campagne agricole. absolument te tey nous avons associé. les associations les organisations paysannes les paysans bi nga xam ne tey ànd ak ñoom fixer le prix du le prix plancher deux cent le kilogramme ça veut dire quoi béykat bi mën na ko jaay plus de deux cent waaye du wàcc parce que ils doivent pas brader leur leur récolte et loolu dafa am solo saisie sociale tey jii boo xoolee tey pour la première fois l'État du Sénégal met en place un fonds dédié à ça, la campagne agricole, logée au niveau du ministère de l'Agriculture. Mm -hmm. Je pense que c'est des avancées notoires et salutaires. Jaber. ah Sunoor nangu nangu na Sunoor. tey jii mënuñu wax campagne agricole te tudd ñu Sunoor mais parce que Jaber tey jii c' est le plus grand actionnaire mais nous avons négocié avec lui ba à l' amiable tey jii sénégalais yi gis nañ que tey mbir mi du taxaw ay wax naa affaire bi du xol affaire bi xel la nañ dem ndànk-ndànk. ayca euh, waaw waaw dernier intervenant dernier intervenant pour pour pour pour wax ci loolu. d'abord waaw commercialisation arachide voilà commercialisation bi. Euh, wax na ko léegi léegi euh, je pense que sama naataangoo wax la ko léegi léegi am na fi ay baykat yoo xamante ni jógoon nañu di wax ni seen semence yi c'était pas de très bonne qualité. Hmm. waaye loolu sax am na boroom xam-xam yu yëkkati kàddu wax ni donc dina impacter sur rendement bi nga xamante ni moom lañ yaakaaroon dinañ ko am de douze à vingt cinq heureusement alhamdulilah yàlla dimbali ñu ñu am nawet bu baax ba nga xam ni am nañ yaakaar ni wax dëgg yàlla récolte dina baax d'après les prévisions comme ni mu ko waxee heureusement parce que dégg naa ko léegi-léegi mu ci def triomphalisme un million un million waaye léegi après après rectifié na dawaaye wax ne prévision patriotisme léegi euh, un million de tonnes moom lañu moom la ñu yaakaar ne dañ ko ci def dëgg la ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla na loolu am parce que suñu njëriñ la ñun ñëpp ñoom dañoo prévoir jàpp ma ni dangeen dangeen da ngeen a jàppale béykat yi onze onze milliards cinq non da ngeen a loger au niveau de la CNCS CNCAS onze milliards cinq muy fonds de commercialisation boo xam ni am na taux bonifié de 6 pour cent pour lan pour faciliter aux OPS. les opérateurs privés stockeurs. oui pour ñu mën a collecte waat le capital semencier bi nga xamante ni moo war a ñëwaat loolu looloo li am. maintenant sama inquiétude fu mu nekk mooy li ngeen wax vous avez vous avez pris onze mesures phares onze mesures yooyu na ngeen fexe ba campagne bi lancé ngeen ko il y a de cela deux jours na ngeen fexe ba li ngeen xamante ne moom ngeen ci jël comme ay raf comme ay mesures na ngeen ko appliqué fexe ba wax dëgg yàlla mu doxee noonu parce que lu ko mooy li muy indi mooy bradage des récoltes te bradage des récoltes yooyu su amee dafay jur li ñu naan délinquance économique quelque part ba pare nag favoriser waat aussi la pauvreté en monde rural maintenant dama gëm ni Suneor dafa war a jouer son rôle dans la camp ci ci ci ci filière arachidière bi parce que Sénégal quand même weesu na fu mu war a amee agriculture boo xamante ne danaan béykat bi euh, dundeel lii jaay lii wàññi ci sa récolte pour pour pour mën ko jëmbat ëllëg loolu caractère agriculture de subsistance la te gëmuma ni mooy le cas du Sénégal beneen bi mooy la Sunayor 300 000 300 000 tonnes la prévoir ni moom la bëgg a moom la bëgg a jël mais Sénégal en au 21e siècle gàcce la pour ñuy exporter matière première gis nga matière première waratuñ ko exporter la Sunayor dafa war a góorgóorlu gën a yokk capacité de trituration ak raffina ak parce que Sénégal dadul jaadu dadul yoon nga dem ki suñu boutique yi fekk huile végétale alors que am nañ fi gerte dañoo war a am huile de l'arachide le chômage des jeunes bi nga xamante ne suneer war na ci mën a liggéey mais da gën a war a góorgóorlu jëm a redynamiser réhabiliter les usines de la Suneor dans les grandes villes parce que loolu war na mën nekk levier créateur d'emploi et de croissance euh, de parce que les hommes politiques lii la ñuy xaar ñoom ñu échanger ku nekk wax sa part de vérité par rapport à tous les problèmes di sant di gërëm mbokku téléspectateurs yi di leen di daje ci beneen émission incha allah décryptage